suma baat ci kaw nag su ngeen ko defulee ëllëg lu fi mun ti am bu leen taxawaat ci kanamu askanu Sénégal ngeen ne dangeen ngeen bëgg jiite Sénégal déet bugg leen jiite Sénégal dama ne lu kilifa diine yépp sant xam ngeen ko au passage ñu ngi nuyu tous les chefs religieux de ce pays toute religion confondue ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar leen jox seen wàccuwaay te may biiralaat wax ci nee naa kilifa diine wàccoo nañu ak askanu Sénégal fu ñu wax wax nañ fa ñu naroon waxal wax nañ ak ñoom ci des mooy que les acteurs fassent preuve de tenue et de retenue mbokk yi am na ñu bëri ñu jàpp ni que président dina def troisième mandat man mën naa wante man gëm ni que troisième mandat du am Sénégal mais nañ ko teg ci yoon nañu waxtaan te bàyyi nekk fii di jéem a xoqalante suñu biir wala tubaab di wooye se faire peur jouer à se faire peur lolu amul solo amul ben solo parce que xam nañ kañ la ñuy commencer mais xamuñu kañ lay jeex ak nak lay jeexee kon nak mbokk yi lu tax may wax lu may wax ni dañu nar a am élection présidentielle février 2024 gis naa ci ouverture dialogue bi parce que nekkuma foon dama doon xaar ñu jox ma les termes de référence lan lañuy ñuy waxtaane parce que man lu ma tax a jóg dem naa ne ataaye déet man naan ataaye taxu ma jóg lu ma tax a jóg mooy dem waxtaanee Sénégal ak lan lañu mën a def ba génn Sénégal ci guutu bi mu nekk nii am nañu bokk ci beneen boor bi ñoo xam nag lu leen tax a jóg ñoom ñu ne daal dañu xalaat que mandat président dañ ko nar a proroger ñi ne un an ñi ne deux ans ñun d'accord ñu si tey duñ si mës a d'accord mbokk yi. bu leen jox gaañ yi excuse wala prétexte pour nous na leen dëkk bi dafa instable nous fi organiser élection bu leen ko def xel mooy xeex xol du xeex de na dëkk bu sorewul Sénégal m'a tudd turam président Tok neuf fa dix ans musu fa am élection ndax lan ñu ne dafa une rébellion dans le nord de ce pays bu leen jox excuse parce que gaañ yi ñu ngi te bu leen nangu gaay yi di dem di ñu yóbbaale parce que réew mi ala kuli al ñoo ko bokk te lu ñu bokk dañ koy pencoo duñ ko pàccoo lu ñu bokk dañ koy waxtaanee duñ ko yàq-yàqet